السلام عليكم ورحمة الله مبكي جنا بسنت يالله سبحانه وتعالى جولي تيرنتي بسال الله عليه وسلم نيو نيواتك ينتي سين إميسون بني أمل تموي القرآن لسوليسون القرآن هو الحل nga xamanteni ni ñu ngi koy amalé fii ci la maison du coran nga xamanteni ni seen liggéey seen yitte yépp moom moo di alquranul karim waaye mbokk yi mënuñoo dem te jaa jaajëfaluñu ñi nga xamante ne nii moom moo di Bachir House nga xamante ne nii euh, ndongo daara buy jàpp ci kër gi la waaye tamit kazalika di euh, yëngatu ci lépp lu jëm ci kër ci wàllu meuble ak lépp lu doomu aadama di soxla ci këram daal incha allahu rabbi bu fa yeggee rek dinañ ko ko baaxee incha allahu tabaraka wa taala euh, mbokk yi incha allah comme niñ ko xamee Euh, ñu ngi woon ak yéen ci suratul naxli doon jël ay aaya yu ama ama am solo doon ko jàngat tey mooy suñu ñetteelu dajewaat ci benn anam bu ñu nekkoon su ngeen xoolee jotoon nañoo leeral gaa yi noonu ak alquran fan lañu mujj ajjuma ji weesu ñu ñëw ak yéen gaa yi xaritoo ak alquran it naka la ñuy génne àdduna ak fan lañu mujj ñaari groupe yépp yàlla subhaanahu wa taala leeral na ko mbokk yi yàlla dafa delluwaat nag ci gaa yële ñu bon ña gaa yi noonu ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gaa yi doon xeex islaam gaa yi doon xeex alquraanul karim ñoom la yàlla subhaanahu wa taala delluwaat di waxaat ak yonent bi sallallahu alayhi wa di ko wax ñoom naka lañu tooge ak lan moo leen di dikkal waaye tamit kazalika di defal ki nga xamante ni nii moom moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu xam ni lii muy jànkonteel nii ak yéefari màkka moom yonent bi njëkkul nekk yonent am na ñu ko jiitu woon ñamu daan woo yonent yee ko jiitu woon ñañu daan woo dañoo bañaloon seen yonent ya kon yow muhammad it kazalika bu la ñuy bañalee amul problème li la war rek moom mooy jottali te loolu incha allah rabbi dinañ ci egg ci yeneen aaya yii di ñëw ci biir saar wi waaye mbokk yi tey saar aay yi ñu jël mooy yàlla subhanahu wa taala fi nga xamante ne nii fa lay waxe mooy hal yanzuruuna illa an taatiyahum almalaikatu aw yatiya amru rabbik kadalika faala alladina min qablihim wama zalamahum allahu walakin kanu anfusahum yadlimuun fa asaabahum sayi'aatu ma amilu wa xaaqa bihim ma kaanu bihi yastahzi'uun allahu akbar mbokk yi yàlla subhaanahu wa nee na yonent bi waaye ñoom day ñoom yéefari màkka nekkuñu lu dul toog di xaar waaye ñoom mbaa dañuy toog di xaar hal yanzuruuna hal googu istifham inkaari la bi maana naf yi dafay dàq ñoom dey nekkuñu lu dul ni dañoo toog di xaar yanzuruuna bi maana yantaziruun min al inzaar bi maana al imhaal dañoo toog di xaar lan la ñuy xaar an ya an taatiyahumul malaayika waaw alladina tatawaffahumul malaayikatu zalimi anfusihim gée ñu jàngoon ci émission bu njëkk ba jamil xam nga yàlla nettali woon nañu ci alquran waxtaane woon nañu ko gaa yu bon yi bu ñuy faatu bu ñuy dee malaaka yi ni ñuy rikkee seeni ruux dindi gu méttee métti gi ñu koy dindi yàlla ne na waa moom yéefar makka ne dañoo toog di xaar malaaka yi ñëw pour jël seen ruux yi aw yaatiya amru rabbik wala seen boroom daal leen di dikkal mbokk yi nan taxaw ci ñaari wax yooyu xam nga yàlla subhaanahu wa taala nee na yéefari màkka dañoo toog di xaar malaaka ñëw jël seeni ruux jëlin wu metti wala mbugal dikkal leen est ce que loolu xaqiqa la bi maanaam est ce que ñoom dañoo toog xam ni malaaka yi dinañ ñëw jël seen ruux jël gu metti wala mbugal dina leen dikkal déedéet ñoom gëmuñu yonent bi di ñoom gëmuñu ni ay malaakaak yooyu am na sax ñoom gëmuñu yooyu affaire yu mbugal mais comme que nanguwuñoo déglu yonent bi nanguwuñoo wuyu yonent bi dañoo mel ni ku toog di xaar mbugal mi leen di dikkal dañoo mel ni ku toog di xaar malaaka yi dikkal leen moo tax yàlla subhaanahu wa taala di waxee noonu xam nga sa doom ji nga yónni ni ko jugal demal ma barab sàngam faalew la mu toog fi mu toog jugut nga wax ko ñetti yoon ba ñeenti yoon xam nga waxul mais ça veut que li mu def firi na ni kon moo bañ jamil waa Makka ñàkk wuyu gi ñu ñàkk wuyu yonent bi ñàkk gëm gi ñu ñàkk gëm ba pare boole ci di ñaawal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba pare yàlla xamal leen ni bis bu leen malaaka di jël si jël gu metti leen di jël walla mbugalum yàlla dina musa wàcc seen kaw mais ànd ak loolu lépp ba tey gëmuñu yalla nak dal len di wacce wacce way bobu ndax force lol dina len dikkel ta nak li gëna yéme ci ñaari baat yi ma len wax muy hal yanzuruna illa an tatiyahumul malaikatu aw ya'ti amru rabbik ñaar yéppay ñew su ko defee aw fi bul ko firé wala du wala de bi maanaam malaaka mi jël ci len wala mbugal ñew déedéet ñaar yéppay ñew tatihumul malaikatu wa yati amru rabbik jamil malaaka yi dinañ leen jël si ñu faatu faatu gu bon waaye tamit kazalika mbugalum suñu borom dina wàcc ci seen kaw kon baat yi hal yanzuruna illa an taatiyahumul malaikatu aw yatiya amru rabbik yàlla subhanahu wa taala comme ni ma leen ko waxee ci commencement bi muy defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko xamal ni ko waa Makka bañ giñ la bañal nii am na yonent yu la jiitu woon noox jiitu na la fi Moussa jiitu na la fi Isa jiitu na la fi ah ak yeneeni yonent yu baree baree baree bari taxul ñu gëm leen kon yow Muhammad bul rey sa bopp ndax yonent bi dafa demoon ba naroon a feebar ci ñàkk gëm gi waa Màkka ñàkkoon a gëm fa laallaka baaxiun nafsaka yàlla subhanahu wa taala nee na yonent bi yaa ngi bëgg rey sa bopp bëgg faatu ndax lan abu jahlin tuubul ndax lan abu lahab tuubut baleen yow jottali rek bilaal tuub na Musab ibnu Umayr tuub na yaa ngi dégg Aboubacar tuub na Omar tuub na waaye bu rey sa bopp yow jottalil kase yàlla subhanahu wa taala xamal yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di koy wax ni ko kadhalika faala alladina min qablihim ñi jiitu woon waa Màkka am na ñu leen jiitu woon ñu yónni leen woon ay yenente ñu weddi leen wa ma zalamahum llah walakin kaanu anfusahum yazlimun mbokk yi lii jumla i'tiradiya la bi maana xoolaat leen aaya yi ñu ngi suratul aaya 33 34 bi maana boo xoolee fële kadalika faala alladina min qablihim xam nga lan moo ma topp normalement fa asaabahum sayiaatu ma amilu laaya jële laaya 34 moom moo ci topp lii fi dugg ci diggante bi dañ koy tudde jumla i'tiradiya daf fee dugg rek yàlla subhanahu wa taala dafa am lu mu expliqué yonent bi waaye xam ngeen aaya yi lan lay firi dëgg xool leen ngeen teg seen baaraam ci aaya yi suratul nahl aaya 33 34 kadalika faala alladina min qablihim yàlla nee na yonent bi bañ gii la waa Makka bañal noonee la bañale woon yonent yu la jiitu bañu bañee fa asaabahum sayiaatu maa amilu fa asaabahum sayiaatu maa am mbugal daal di wàcc seen kaw firee ko noonu rek mu jeex fa asaabahum sayiaatu maa amilu jëf ju ñaaw dañ doon jëf mu mujj nekk mbugal ci seen kaw wa xaaqa bihim ma kaanu bihi yastahziun mu daan leen mujj a mooleen lan moo leen wër mbugalum yàlla lan moo leen wër nattu baatub xaaqa mu ngi jóge ci bi maanaam axaata mooy lu wër mais en général bu ko alquran utilisé ñu ngi koy utilisé ci lu bon bi maana nit bu ko musiba ndar keppee wër ko ñu ni ne axaaqat wala xaaqat bihi musiba yaa ngi gis kooku musiba moom moo ko moom moo ko wër yàlla subhaanahu wa taala daal di wax ki nga xamante ne nii moom moo di yonent bi saa salaam xamal ko ni ko ñii nga xamante ne nii ñoom ñoo jiitu woon ci ay yonent woowoon nañ ay nit yaa ngi dégg nit ña bañ yàlla subhaanahu wa taala daal wàcce ci ñoom li nga xamante ne moom moo di mbugal gis nga yàlla mu ngi wax ci alquran wala yaxiqul makru sayyu illa bi ahli gis nga toujours baatub euh, xaaqa bu ko alquran utiliser rek euh, mbugal lay wax mu daal di ñëw daal di ndar képp gaa yi wër leen ñu daal leen di alag comme ni ñu ëllëg alage woon xabilatu aat ak xabilatu samut comme ni ñu alage woon waa kër yoon te yàlla nuux comme ni ñu alage woon ki nga xam te moom moo di na ak ñamu àndaloon yàlla subhanahu wa taala xamal na yonent bi ni ko ñii lay bañal ni ñuy waa màkka bis dina ñëw mbugal wàcc seen kaw te xaaj ba mbugal wàcc na seen kaw ndax première xare bi nga xamante ne moom mu njëkk muy xare Badar ci leen rey ponkali yéefar yi sonaloon yonent bi yépp ka ca jiitu woon muy Abu Jahlin xare Badar la ñu ko rey te li taxoon yàlla subhanahu wa taala wàcce wuloon mbugal ci seen kaw ñoom ñépp comme ni mu ko doon wàccee ci ñeneen ñi mooy yonent bi nekk gi mu nekk seen biir yàlla moo ko garantil yonent bi ni ko tànk yaa ngi dund du ma wàcce mbugal ci seen ci saw xeet boo fi jógee sax du ma wàcce mbugal ci seen saw xeet fek ñu ngi def li nga xamanteni mom modi istighfar wax astaghfirullah kon mbokk yi gis ngeen ni laaya yi nga xamanteni ni mom lañu jël tay la ni ñaari wax la indi pour ngeen japp ñu jéxal fofu yalla xamal na yenen bi sallallahu alaihi wasallam niko han wa ah dal dañu tok di xaar malaaka yi ñew faat leen faat bu metti ak lan mbugulum yalla leen parce que bañ gi bañ lolou lay firi ñaarel ba yow muhammad jarul ngay ray sa bop waa Makka bañ giñ la bañal nii du lu bees am na yonent yu la jiitu woon ñu woote woon ñu bañal leen ma mbugal leen te ñiir fa laa jëm ak ñoom kon jaroon nga ci rey sa bopp mbokk yi te loolu mooy continuer ba yamal xiyam wallahi képp ku bañal yàlla bañal yonent bi saa salaam sa mujj ju neex te boo wuyjee sa borom sa borom dina la mbugal yàlla nañu yàlla subhanahu wa taala dafa digg ak topp jéggal suñu bàkkaar ak suñu rëcc rëcc incha allahu euh, ajjuma ji di ñëw dinañ ñëwaat ak ci aayee ci biir suratu li gën a leeral ay wax yoo xamante ne ni yéefar yi ñoo ko daan wax te mu nekkoon wax yoo xamante ni taxawul fenn ak yàlla gan tontu leen tontu te wax yooyu yéefar yi daan wax am na ñu leen ci jiitu woon daan ko wax te ba guddi tey jii ba 2021 gi ay nit ñoo koy wax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 da ngeen qualité donc Dawlen leen Bashir Bachir House Bashir House di benn boutique d'ameublement Bo xamni day jox sa intérieur caractère Wow wow. suñu meuble yëpp ña ko importé Égypte dinañ la jox tamit ay salon Louis XIV l'altera moderne triangle wala le Louis cocktail ah lol dina rafet ci salon wala ci chambre à coucher royal ah fu mu moderne gën fa classique Fofo baax salle à manger table à manger wala bok ay meuble d'appoint ay console royal 100